original ay waay féexal sam xol. original 100 pour cent pur jus de fruits original moo leen di wéttali seen bépp xew-xew. Sénégal ka fay kan ngi yegg si say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo. KPR transfert local la ñun ko moom. di ci soññu Sénégal yépp ñu consommer ko. ba këram avant muy nekk un drogué këram ay robinet or dafa nekkoon. Mhm. la amoon ci dëkk. moom mooy dem moo doon démonter robinet yi par benn di jaay. di jaay ba kër ga yàqu délabré. mais dafa ñë monsieur Platini Platini ñu Maris Trésor. Mhm. xamee loolu ci moom. dañ ko organiser jubilé. jël seen moyen ñoom. yóbbu ko en Espagne boobu temps Espagne la ñuy defee désintoxication. pour mhm. génn feebar ci yow. tëj ko fa pendant six mois. di ko nettoyer. bañ ko fay jëlee di ko indiwaat jour jubilé lañ ko indi. organiser ko jubilé. stade bi fees dal parc des princes. Mm-hmm. boobu tax stade de France amagul. recette ba fa génne. ak yi ko état bi jàppale. doon ay ay ay ay millions. ñu ko recadre ko defaat ko ba mu nekkaat nit ba ni mu xaw ma dee xaw ma dee ba mu nekk nit ku normal. Mm. ba ay parax après demaat na ba dellu Mali. Hmm. créé fa ay ay tool ak ay genre yu mel noonu. noonu la ñuy encadré ñaata Sénégalais ñoo sànq. dëgg la noonu ñaata Sénégalais ñaata sportif rek. Hmm. am na sportif yu dee sax. Hmm. seen dee seen dee jotul. parce que dañuy aigri dañuy mer lan laa defal sama réew. Double Less ñaata médaille dootu ay Arona Mané ñooñu ay Rebelle Diouf ay Mbaye Guèye te ñoo ñëpp dañuy nekk le besoin ba dañuy dee ah. pourquoi du ñuy je me rappelle très bien d'un d'un expert boo xamante ne euh, coopérant la woon dafa ñëwoon fii tombeek ñoom Double Less di def compétition temps Double Less Amoura Sarr temps yi dem di jëli médaille tout le temps rek bi muy dem di di def retraite boobu temps ñun ñu ngi apprentissage u lutte olympique ñu toog ñii di ko defal po quoi ak ñoom yàdd ak ñëpp mu ne oh Sakho Double Less Sakho la ko doon waaye Sakho oh Sakho c'est si tu étais français ou américain ou européen tu serais champion du monde champion olympique quatre fois les quatre ans sans problème sans sans une a de deux mètres passés. bien musclé. ba di gagné ay médailles d'or. du mel mu saan def championnat du monde day dem ay quatrième place lu tax mu daan perte amul préparation amul ko africain la. Mhm. l' africain ne ne s'occupe que sa gueule. les européens dañu naan kii monument la. su daanu état bi moo daanu. moo daanu de tout le temps suñu dirigeant yi mu seen am depuis les postes de Senghor. ba fi nekk nii ah, mais fu mu sa jaar sa intérêt nga fi nekke mu mm. jeex nga dee mm. wala nga tuxu dem dëkk France mm. baa nga dëkk Allemagne xamatoo Sénégal ba ni ngay faatu loolu nag tant que dañul Sénégal mm-hmm. suñu sportif yi mm-hmm. duñu mës a évoluer Sénégal bu dee mise ci sport ban ci sport mondial ban la war a viser les de combat mm-hmm. ñooñu mën a indi satisfaction sport de combat de bëre rek de judo boxe karaté loo xamante ne yow ak man la à toi à mois nga lekk say pat ak sa spaghetti ak sa yàpp mbaam ma lekk sama cere ak sama dëxin ñu jàkkaarloo ku ne wane sa valeur dëkk runkum dajee jino bëre la kare da la amoon nañ ci ay temps ci yëful feu et flamme mais kañ la nga ji déggati champion d'Afrique lutte la nga dégg champion d'Afrique la dégg champion d'Afrique sax biee bi doo dégg dara ñoo amatul bëri rek moo nekk sport roi au Sénégal ñëpp di ko seetaan tous les dimanches trente mille personnes di ko seetaan te bëri kurpañ la te bëri ba tax ñuy wax bëri hmm. muy bëri cosaan di bëri simple ay deux millions la ñuy tegal téeméer hmm. di di ko xëccoo on doit refaire beaucoup de choses sur la lutte et en général sur les sports de combat hmm. pour maanaam satisfaction pour sunu hymne national di retentir am ah. daal retentir ñu ngi koy lancer message boobu à madame émission baa ngi gudd mais dafa am ñu ma poser question romb nañ une heure temps dem nañ deux heures pass ñoo ngi dem rek macha allah gars yi ñooy laaj sa diggante Khadim Ndiaye ak sa mémorable combat boobu Khadim bras volet bi bi koy téye. ok d' accord. ñooy laaj loolu. ah macha allah loolu ba tey rek mooy li ma jàngate bokkul ak bëree rek. Hmm. mooy bëri tubaab li olympique. waaw loxo nga ko daaneel. mais bien sûr parce que dañuy jàngal déséquilibre. waaw ah. dañuy jàngal partie yi ngay téye. ba soo ko defee waa gi su demul am lu yàqu ci moom. Hmm. c' est important ko bu demul woon mbagg bi mooy poqatiku. bu demul woon mbagg mbagg bi mooy poqatiku wala mu summeeku. dëgg la ma daw intercepté ko téye loxo bi ba mu wóoroo prise bi baax na. ma téye loxo bi ba mu wóoroo kii baax sama ngam ma arrière indiwaale ko. dèjà boo ko indee rek dafay def day marché day dox ñoom. Mm-hmm. bu doxee rek mooy oyof oyof na dèjà. avec bi ngay def xëcc mbag loxo boobu ma la waxoon. Mm-hmm. ak loos bi nga boole ko. boo demee dafay rotation day accepté dem daanu ji rek. Mm-hmm. par déséquilibre ou mu yëg douleur ci loos bi ak mbagg bi dem daanu. donc yooyu yooyu action la. donc maa ngi nuyu Xaadim Njaay aussi di ko. Euh, félicité soxna si mu takk nii fa tabarkallaaw euh, yal na ci ay doom judd ci islam te léegi nag wax ko ko nag moom moom Xaadim Njaay sama rakk la woon ñu bëree benn yoon ci àddina ma daan ko mais laata ñuy bëree ak ginnaaw bu ñu bëree sax laa gën a xamante Xaadim Njaay ànd na fi voyage Italie ñaari yoon seq nañu relation ci association militaire en activité mais après Xaadim Njaay euh, devant le micro il fait ce qu'il veut mhm. duñ ko tontu duñ ko faale mais léegi nag damaa gis dernier moment moo tax may mën naa wax ak moom dama na man sax dem ba këram ne yoon nii la parce que loolu la ñu war a séq mag moom moom am ku mu faral moom day tàkk rek wax li ko neex après sax des fois da dégg mu réccu ko mais c'est le bon moment maintenant dama ko dégg mu def analyse Jackson ak euh, ak Lagros ah. analyse boo xamante ne man dama xalaatoon sax xamu ko ci yooyu war a nekk bu mu sa am mbër mun naa am faral na ay dëgg-dëgg ak waa caaro mais bu analyse si ñaari mbër di ko def comme Lac Rose nii télévision yeeg site internet ñoo koy toog nay toog di valoriser li mu def. xaaral hmm. mi itam il a fait des des choses extraordinaires au Sénégal ah. Hmm. jeexal naa ay moromam attention ñëw ba ci ñun ci man la tagga téem rek ku bëreeg yëkk nii bëreeg ay ñëpp la bëreel Xaadim aujourd'hui mu toog am expérience li mu analyser xaw yaakaar naa ne mënu ko hmm. c'est très fort de mu analyser ah. booy booy xanaa booy xool ñu analyser combat Lac ak ak. Euh, Jackson ak Jackson. même man y compris ci analyser gul wax ko ma ci benn analyse. Mm-hmm. mais damay ne ñëpp les points. te man su ma nee analyse combat boobu mun naa jël repère si Xaadim Njaay li mu wax si hyper extraordinaire. Mm-hmm. wax wane na Lac mooy kan wane booy bi jeunesse bi ko daan. kon loolu suba nga koy toj les spécialistes les spécialistes naa si expliqué yi yëpp ñu leen ko fii ci plateau bi ñu nekk li TV uh-huh. le cas de combat de Khadim Ndiaye euh, euh, Lac Rose Lac Rose ak euh, kii ak le cas aussi de du frère de de la grosse contre le génie la. doomu Thiatou Daouda Fall waxtaan la yoo xamante ne ku ci ne mën nga ci gën a xam-xam. kon gars xaar leen loolu suba. demee incha allah. la nuit ànd ak Lamine Wéy. Uh-huh. ànd di sawar ànd ak kat sawar aussi Paala Diop. Paala Diop aussi. Uh-huh. il fait des analyses yoo xamante ne après jeexital bi. da lay uh-huh. indil ne la lii moo xew. tu vois c' est c' est hyper. mais les spécialistes yéen Sénégal. mais ko nag. mais nan ngeen ko imaginer <laughs> xam nga kër gi goo xamante ne suñuy jarbaat dañ fi nekk suñuy doom. gi ñu nekk tey jii nii. Ah. Euh, papaam ji yàlla ko yàlla yërëm dafa nekkoon un di supporter les séeréer. amoon fa ay nit ñoo xam ne dañ maa supporter. fii ci allocation familiale ndeysaan. Hmm. am na ci bu ñox Moustapha il était de Kaolack tenk ñoom ci làmb moom séeréer la fa aloon. Hmm. ñoom bës nag nekk ay boy town juddoo bi ci Euh, zone A bi ñu nekk nii. dañ ma faral su ma musaan jógee stade Demba Diop ñi laay jaar. ñoom ñuy génn bokk ci xale yi topp. moom tam ba sam gëgëri face doon ñëw di ñu seetaan entraînement. Mm. mujj gi mu nekk ay copain Gris Bordeaux mujj gi mu nekk ba dugg ci la. bu yore mel nii dañ koy assister taxawu ko. Mm-hmm. lépp lu ñu xam ne dafay gàllankoor dañ koy taxaw ko. Mm-hmm. mais day jaar ci yoon bu jaarul ci yoon dañuy xam ne aussi mel na ni ñoom. mee mm. bu émission di ko def. bëgg moom ñu ma ñu war ci jàpp pour mu ñëw mhm. quel que soit sama temps wala sama sama disponibilité mhm. wala horaire bi ñu may jox du ma intéressé li may intéressé mooy li may def rek man ci ci émission dafa nekk jàngale bu mhm. ah. mel ne kon émission bi ñu ko déglu ñëpp après comprendre nañu carrière lu Moustapha Gueye tuuti ndax lii je pense que ne amul kenn ku mos toog di retage sama carrière comme nii xëy na boo doon la RTS ah. am tous mes images ah. ah kon mu doy waar. xëy na ay images la ñuy génne kon su boobaa yoo xamante ne. ay ah. combat contre Ibou Ndafa. yàlla na ay ay 1986. Ah. ay 90. 92 yooyu la ñuy génne. 92 ñu xam ne lamb ñu ngi ko daan bëree bu njëkk. Ah. wute naag bii lool. bu njëkk bi ñu koy bëree barrière la ñuy def. 100 hmm. mètres. 100 mètres foo de foo dem baax. te uh-huh. léegi wër nga lu 30 mètres la ñuy def. scientifique bi ñëw na. Hmm. Euh, xam-xam ñëw na. yéen ñëw na waaye. Ah. du tee rek ñu delluwaat ne man man dama gëm ne. Ah. ñu daan bëri démb ñoo dàq ñëw nañ. Ah. ñoo dàq bëri fuuf. ñu bëri tey ñu daan bëri démb nañ teg ci xam-xam. ak manoore ak cosaan ak aada. ñi bëri léegi daan leen def musculation bu bëri de. non non non vraiment. man ma bëggee yóbbu musculation. Mhm. boo fekk na ma bëree euh, ba mille neuf cent ba voilà sama combat ak Aliou Diouf sama commencé musculation mille neuf cent quatre-vingt-douze. Hmm. ak forme olympien yi. fu dee d'une contact ay boxe daan ko def ñu commencé après ñoom léegi ñuy combat di boxe mm. ñoom Birame ñoom Nguer mm. ko suñu nekk fa ku taxaw naan nii mm. di sànni nekk sànniwaat mais yaa daan ko def géej naan contacté contact géej bokk la contact nature bu géej xale yi nañu faral moo tax bi làmb ji demee ko ci géej waaye booy yoo fi doxal booy caare yi doxal ñi gën a jege tefes yi ne wala oh ñi connaissent le tempo le tempo mooy brise de mer bi ngay contacté soo ko mu ngay entraîné yow ci géej gi. Ah. ka entraîné ci géej gi. Mm-hmm. bu ngeen dajee ci compétition. Mm-hmm. ngeen yem même effort. kee ci géej ga kee ci jéeri ja ka ka nekk ci géej ga mooy ëpp oxygène mooy gën a baax condition physique. Mm-hmm. Mm. loolu maa ko mayaat sama doom yi. waaw ah yaakaar naa ne kon émission bi. daal daal nekk roi des arènes. roi di xew. boobu temps bu ñu fàttali rek roi des arènes ci mën a ban maa nga da nekk dem yoonu mbokkatu. bu mu ñëwaatee roi des arènes amatul. attention. waaye comme que appellation ak wax. Ah. ak jëf mooy déclaration d'appellation. waaw man on m'a nommé un jour dieu sama yaay dina ne day àkk ji ki ko ah, ma ko bind mm-hmm. mu ne Omar dama sama doom du yàlla. kon yow demoon nañu ba ñu dama dama ne dama fàtte. buggoon naa ko indi sax brandi ko ñu xam ne lii lu am la. mën nañ ko teg ay wax. incha kon bi ñuy wax ay empereur ak yooyu jeu de l'arène amoon ñu naan après ñu def benn point de Tafa Gueye roi des arènes nañ ko def point d'interrogation. Mhm. te boobu temps roi des arènes amul de. Mhm. waaye damaa ñëw def ay manoore ginnaaw manga. di daan di daan ba ñu sentir na kii mooy roi des arènes. waaw te pourtant attiré wuñu ma ko de. Mhm. ndax attri attiré ma ko. parce que bu dee mag manga mais gis nañ ne jëf jë mat na jëfu roi des arènes. moo tax ñu def point d'interrogation après nag le jeu de l'arène ma daan naan ma daan naan jamaan dafa ngay jeu de l'arène parce que dama yàlla nekk nañu yàlla jégal te jégal ko ko bind tax jë hmm. la mun doon waaye nag avec un D minuscule ah, ah moo ci boobu xam le journaliste ah, D minuscule D minuscule D minuscule muy signifié man jànguma bu ndaw bi rek yàlla moom maanaam maanaam bañ ko tolloo lekk donc pour expliquer rek que ah. euh, noonu la làmb tëddee lépp lu ñu ci def nag ci réussite ak. Mhm. ndax ñu réussir loo nooy fa nit. Mhm. financièrement. te euh, fekk kooku ñoo ko jàngal ñoo ko tàggal ñoo ko teg ci yoon. Mhm. nit tam réussir loo nañu. waaw am na ñu am ak xaalis am na ñu nekk ay nekk ay ministre jaar suñu loxo yii. moo xam ne dañu accompagner. suñu na benn kon Ama am na problème de. gis naa ah Fass nekk benn de normalement saa bu ñu nekkee benn nag sont dangereux. dañu bàyyi gaa gaa yi. Ama Baldé. gis naa Fass nekk benn de. tout est possible dans original ay waay féexal sa xol. Ah. original 100% pur jus de fruits original moo leen di wéttali si seen bépp xew-xew. ay waay original. Sénégal ka fay kan ngi yegg si na facture moo ci gën a gaaw. KPA transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci Sénégal yépp ñu consommer ko.